xam ne ci loo nekk. maa ngi nii rek. lu bees. dara beesu yaa ngi ci jàmm. sa kanam gi dem na de lu xew. ah jaaxle rek nekk di xalaat. lay xalaat. su ma dëkkandoo yi ñoom Yacine. Mm-hmm. keroog bi ñu jë bi ñu jëlsee. Mm-hmm. ñu defal ñu test bi. waaw oh. heureusement ba yëgewuma Yacine man xool nañ ma mais aw ma ko looloo ma muccal moo tax ma nekk fi ba léegi. Ah. mais ba léegi su ma xalaatee ñoom Yacine wéraguñu ba tey. nee naa la bul inquiété wu dara du la dal. te yar beni idi mo ne ko sama xele ci bëgg waxtaan ak hmm pour nga ñëw toog ah bapa, paa bi na ko nangu ay na ko hmm ah bay naa ko sa loxo xolal koor gi jeexee fay neex hmm Insyaallah, ya lebaran. Kalau kau. fo demone ci mbedd bi yow ñak nga jom dem mbedd mi lañuy téré ni nii ñu ngay dem mbedd ma amuloo maam seen cour yaay ni nga naa woo maam xoolal fii waay xam ki yu nga wax ma ma comprendre du ma ci ana sa kay ma ci bi taw jox ma ban mat nga comprendre e ni ci so eh. comprendre ba pare ngay génn ci mbedd mi doo toog di ni ngay dafa sa sa baay mere wala sa ndey Nilalaida limomie Sakat gudul gena Popo meti Odora gudem yu Lamin bisa full Mana yaram kutanga Maya gaya ang sama Mungkin Mungi ada. ga Ya man gaya shak jurbin lagi nyari mas ngayah ko Wali man bata gela lama sih man iya, Ya ya nyak nga jam Do ang jam tuti ngata ke mas proteja. protege Ana sama telepon Sa telepon min si Ini mau kok aw seetlu na ma ne weene nii rek u laaj ma sa portable ba fekkee photo yi leer yi ma see photo moo tax u di ma ko laaj may ma tuuti rek ba sooba yàlla li ma jëlee si portable borom photo yi leer. yaa jaan xam laa la wax yow ku ñàkk jom. adduna bi réew yëpp a jaaxle. kër. mbay wax na ngeen wacce sen masque yi xana yugul len ne dafa am genn len ci biti xana yugul len corona bi ñuy wax li rek ngeen di def motax ka communautaire yi bari cam toog len sen kër ah sisiwu. chez vous mbokki ñoko ñoo gis ngeen mère nogay nu muy jappalé sëtam ci bir kër gi ci jangam lolu lu bax la parents yépp dañ ci waro roy gis nañ tamit mu dàq ay période bi du période de visite de grâce restez chez vous